Boki, lim nan nak mbam gat na waye si jur gi la bok ah lolé tax wa association japo sokali sunu gox Medina Sabax ak liko ko wër wa Ngayen Sabax wa Kaymor ak liko ko wër ak tundu wo yep ñone di yegal sen manifestation bu ni amal bu nu tabaskee ba nopi yamook altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si wéru ut ñu ni nag ndaje bi len dong moko itel sen gox bi nga da no némé ku ni dafa dalu ginnaw ken bolaw len ci dara amul ben politique de développement bu fa dugg indépendance ba légui gox bi ñu ku ni rang lu dul mu indi leen ay poto di leen koy xoy du yoon bu baax lu dul ay rang-rang am ay jeexintal ci seen dundu feebaru dënn jafe-jafe yi du benn infrastructure si wàllu paju jigéen ñu wéru lii ñu ngi leen di jël di leen yàpp ci ay charrette maanaam daal li fa tumuranki bare loolu lii nag waa gox bi jàpp ni injustice weesuwu ko ñu ni nag danoo bokk ci réew mi fal nguur gi ci lu tollook téeméer bu nekk juróom-ñett fukk ak juróom benn ah mbokk yi waa association ànd soqali ko seen ay droit ndax nag ay sénégalais lañu te duñ ko jéggaani faneen donte sax Gambie joge na leen waaye gis nañu ni village yi ko wër yëpp foofee la investissement yi ëpp yi ah mbokk yi waa association ànd soxali suñu gox ni des na de suñu bàyyi yi nga xamante ni ñoo nekk si tool yi bu nu bàyyi kenn du ko jënd kenn du leen accompagner si dara suñu ndaw yëpp bàyyi nañu gox bi dem réewu taax ngir wuti dara ñun nag danoo sonn danoo tàyyi xeexuñu jéebaanewuñu dañuy laaj suñu droit moo tax ñu wootee naka altine yemook ñaar fukki fan ak juróom si weeru août ginnaaw tabaski ñu ngi déparé buntu kër Modou Wade ñu bëgg nag mbooleem gox yi nekk tund bi takk leen charette yi takk leen jël son excellence président Macky Sall ak premier ministre am ah association ànd soxali suñu gox Medina Sabax ak ñun de dañuy dégg plan Sénégal émergent rek dañuy dégg PUDC dañuy dégg nga la si mi Sénégal benn la kon ko si bini bi ñuy moomeel bi kon ñu Cheikh Modou Bamba Thiam Ibrahima Niang Mohamed Mourid Mbow ngaye Ngayeen Bamba Cissé Kaymor waa Kaymor Cissé fàttewuñu kenn dal ci manifestation bu mag bii ku ko dégg rek jàppal ni mooy sa te nag nga jàllale ko ba ñëpp jot si